waaw dañoo gis ne nguurub Sénégal dafa nekk ci li nga xamante ne moom la gën a mën au mi nga au lieu mu régler problème mu jàngalekat yi dafay dolli xar bi karaw ndax tey jii moom ñun moom ñun ñoo ko war a def réquisition ndax ñoom ñoo deful seen liggéey au moment où nga xamante ne jàngalekat yi ñu ngi jooy li nga xamante ne moom mooy reclassement validation mise en solde nga xam ne état da cee jël ay ay ay ay taxaw da cee taxawoon wax ci lu leer ne loolu dinañ ko desa euh, dépassé d'ici janvier 2016 ñu ñëw ba période bii defu ko mu ne day xoxatal jàngalekat yi da leen di dellooloo ginnaaw pour si seen revendication ñu bañ cee wax dara dama ne loolu dañoo jël yoon bu gën a yomb bi waaye ñun tey dañoo taxaw temm pour mener lutte bi ba mu jeex takk te bañuñu ci dara ndax góom boo ko buggee faj danga koy xoos dañoo sonn fukki at ak juróom ñu nekk at bu nekk ñu génn dégguñu nit ñi jéppi nañ ñu parents d'élèves jépp suñu élèves yi jéppi nañ ñu dafa war a doy dañuy faj góom bi mu jeex benn yoon élèves yi jàngale dañuy faral nen buñ ñu defalee lépp bu mu noppi bu leen neex ñu tegal ñu ay contrat de performance ne ñu lii lañ bëgg ñu boobaa ñu xam ne jàngalekat yi taxaw nañ pour liggéey mais mënuñu nangu nga yoreel nit ki ba pare di ko jaay doole mu mel ni dëkk bi amul loi loolu dafa dañ ne dafa jeex te dafa doy loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg nañ dagg salaire yëpp ba mu jeex terewul ñun dinañ dundu ndax ay doomu aadama lañu am nañ feneen fu ñu mun a sukkandiku lu dul lii sunu liggéey bi dañ ko def ngir jaamu ci yàlla kon ñun kenn mënuñoo xoxatal kenn mënuñoo tiital fañ taxaw ñu taxaw fas yéene xeexal jàngalekat yi fas yéene xeexal élèves yi fas yéene xeexal école sénégalaise ndax loolu moom mooy sunu mooy sunu nekkin te moom lañu nekkee boobu ba léegi di ci xeex pour élèves Sénégal man la kuy faj góom da nga koy xoos yërmande boobu ñu am si sunu ndongo yi yërmande bi ñu am ci système bi moo tax tey ñu ne nañ ko yemale ren mu jeex benn yoon kenn bañ ñoo déggati ci li nga xamante ne moom mooy ay grève nit ñi sonn nañu ah jàngalekat yi ils tiennent en leen toute la population chaque année rek ñu ne dégg ñun la ñuy dégg mu mel ñun rek ñooy citoyen ci rew mi kon dafa war a mun a jeex ñu dem ñu liggéey liggéey lañ ñu sant impôt kan lañ koy jox état pour mu mun a réglé problème mu askan bi tey jii jàngalekat bi bu demee grève kan la am comme comme mun a su su muy sukkandiku pour mun a grève mooy élève bi tey mbalit bu nga xam te ne borom mbalit bu demee grève mbalit da koy bàyyi ci mbedd bi pourtant ñun dañoo am droit à une santé euh, euh, à une hygiène publique mm-hmm. mais ñun boobaa dañu koy xañ transporteurs yi bu ñu nekkee grève seen oto la ñuy taxawal kenn ku ne am nga liberté nga déplacé wu médecin bu ñu nekkee grève du ñu faj te ñëpp am nañ droit faju keneen nag avocat bi ak leneen ak leneen kon ñun lu tax ñu bëgg ñoo xañ suñu droit ne dañ ñuy xoxotal dafa jeex dafa doy. kon dafa mel ne xoxotal beeg salaire yi taxul ngeen dellu gannaaw. waaye loolu dama lu ndaw la ci li nga xamante ne ñun ñun ñu ngi koy xaar ñun fu mu doon dàq la ñuy xaar ñu def ñu ko. Mm. comme que nag dañoo bëgg dàq nañ buub jàngalekat yëpp dàq leen xool ndax dinañ mun a def liggéey bi waaw kon ñun toog taxaw nañu temb xeex mu jeex takk benn yoon ñu ñu xam-xam ne du ñu ay caaxaankat syndicaliste boo gis du caaxaankat liggéey rek lañu fi nekkee mais bu taxawee na ñu défendre suñu intérêt dañ koy def benn yoon mu jeex tàkk. waaw kenn ku ne ak nu muy jàngatee li nga xamante ne nit ki demul dem mais ñu dem grève yoon la ñu dagg seen salaire. mais dagg salaire bi dafa am nu ñuy daggee salaire grève naa octobre ñu dagg ma octobre ma grève novembre ñu dagg ma novembre mais ñu dajale octobre ba novembre ba ba ba juin dagg ma ko des sommes de 200000 francs loolu doonatul dagg salaire loolu téye salaire la jaay doole. bu dee salaire bi noon la weer bu nekk nañ ko téye ñi nga xamante ne nag dagg nañ ko de façon arbitraire ñooñu nañ def réclamation ñu dem jël ko syndicalisme nag ñëpp ñoo adhérer si àddina sax yàlla suñu borom moo ñu moom te ñun ñëpp gëmuñu ko. kon loolu ñun munuñu poos puus kenn mais bu doon fukk ak juróom lañ ñuy xeex daañu xeex ba mu jeex takk pour njëriñu askan bi moo tax ñu koy def que nit ñi comprendre médiateur ak leneen ñu sunu médiateur tey jii bu gën a crédible mooy sunuy bulletin de saleer loolu moom day leer naññ ci biir kon médiateur bu mu munti doon na wax président de la république na rencontré jàngalekat yi waxtaan ak ñoom jox ñu ay échéances leer yu nga xam te ñëpp dañ koy respecté ñu mun a si classe yi. wax on demande pas l' impossible laajte lan la ñuy laajte moom mooy te ji li nga xam mise en solde la wax ne 15000 mise en solde 10000 mise en solde na ko yokk parce que 40000 personnes mënuñuy di xaar nga ne 10000 laa ci jël donc sur 4 ans nii ñooñu dañ toog ñu ne ko pour formation diplômante. mi vingt et un mille lañu mu jël si trois mille ñu ne ko yokkal nombre bi da ngay gis professeur bu nekk ci école def quinze ans professeur contractuel lay continuer doon professeur mathématique sous prétexte diplôme spéciaux yi la ñu am ñu dañ ne nañ leen jël ñu former leen bu ñu leen former ba pare ñu kon question yooyu amul dara lu ciy xaalis nañ bàyyi caaxaan nañ bàyyi sénégalais yi ñuy nax dafa doy.